الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ay yéen mbokk jullit yi ñi ngi yeesal di sant suñu boroom subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moo ñu bind moo ñu moom lépp luy xéewal ci ñun moo ko ci def borom boobu ñu ngi koy ñaan mu julli ci yeneen tam bam yónni woon ci ñun mu ñuy jàngal luy tax ñu texe àdduna ak alaxira yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi diin ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngeen sax ci loolu ba dee fekk leen ca gannaaw loolu mbokk julit sunu xutba tey bii day ñi ngi koy jëmale ana nan la ñuy def ba am jàmm ci suñu sëy yi yaakaar naa aajowul nga nekk imam pour xam ni jamono bii lu bari ci doomu aadama yi ay jafe-jafe yu tar ñi ngi koy dund ci seen biiru sëy loolu nag mbokk bu ñu xoolee diine islam bi nga xam ne daa ñëwoon ngir jàmmal doomu aadama yi adduna alaxira heure boo gisee loolu am rek da ngay xam ne ñaari way dencante ya am na ca ko jàdd yoonu lislaam boobu mboo ko xam leen ni yàlla dañoo booleeg benn noon noon boobu muy iblis lan mooy liggéeyam gannaaw bam ñaanee yàlla mu may ko mu dund ba ilaa yumi diin benn mooy indil doomu aadama yi jafe-jafe ci àdduna alaxira mu tabbal leen sawara yal na yàlla musul ñi ci ay pexeem suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iblis day bu demee ci ab dëkk nee na ca géej ga lay dem toog mu ne dëkk bu la gën a jege géej moo la ëpp ay fitna laajal Sénégal fan la fitna yi ëppi mooy Ndakaaru fan la gën a ëppi footal yi nekk laajal waa mbuur loolu kon da ngay gis ni ku la gën a jege géej moo la ëpp fitna nee na bu ñëwee toog ci géej ga su ko defee chiyaatiina ya tasaaroo woon ci réew mi yépp ñëw di ko ziyaare da nga gis ku ñëw ne ko ay kilifa gi man day topp naa diw ba day naan léegi sangar mu ne ko ah yow defagoo dara keneen na ko man day topp naa diw ba léegi day njaaloo mu la gaa yooyu def koo dara bu ñuy rendre compte di rendre compte ba benn waay ñëw na ko ci kilifa gi maa topp diw ak diw ba teqale seen diggante seen sëy tas na iblis xëcc ko ba mu ñëw mu lëngu ko na ko yow mii ay waaja lii mbokk daf ñuy jàngal ci ne ku nekk ci ñun war nay bàyyi xel loolu war nay bàyyi xel noon boobu nga xam ne gisoo ko bés bu nekk mi ngi trankulaayu ci kër gi bëggul lu dul indi musiba ci biir kër gi loolu nag bokk na loo xam ne lu la cay préparé nga gën koo xam mbokk ak sëy heure buñ cay dugg dañ koo war a tànn bokk na luy gën a indi musiba ci sëy yi mooy nit ñu bari la ñuy xool ci ab sëy mooy situation ba waaje nekkee ki nga xam ne mooy waaji it situation ba soxna ci nekkee la doon ca taaram bala wala fami ba mbokk la wala lu mën a am ci bari àdduna ca loolu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon heure bu leen dikkalee di ñaan seen doom koo xam ne yëg ngeen ne diineem day gërëm ngeen ko jukkoo mi gërëm ngeen ko ku mel noonu may leen ko soxna amma bu ngeen demee ba sëy yi ngeen di ko teg ci kaw lu dul diine ak jukko fitna dana tàbbi seen kaw loolu kon di mbir moo xam ni mu jar a bàyyi xel la benn jigéen bu ñu wax Fatima bintu Qays ñëw na na ko ay yumi yàlla yónni man day jamono bi may kenji sama jëkkër am na benn waay bu ñu wax Abu Jaham gaaral ne ne daf maa bëgg comme soxna am na ku ñuy wax Maawiya gaaral na ma ne damaa bëgg comme soxna léegi nag loo may dëggal mu ne ko abu jaham de bul séy ak moom ndax kooku day dóor ay soxnaam ay jukkoom rafetul maawi yi amul dara kooku bul nekk di seeg moom te loolu daan ci dellu siwaat insha allah allahuma mbokk loolee nga xam ne la koy yonent bi alayhi salaam wax mooy waxu ko lu jëm ca wàllu diineem ndax musiba diine gën a garaaw bu doon day sàgg ni julli wala di naan sàngara dana ko wax loolu waaye jukkoom la wax abu jaham mu ne ko kooku day day duma ay soxnaam bul sëy ak moom muy wane kon ne jukkoom mbokk mooy la gën a am solo ci base la nga xam ne mooy baasu baasu sëy ndax ki nga xam ne jukkoom dafa rafet en général du xalaata tooñ kenn rawatina nag ñooñu nga xam ne ñoo ko gën a jege muy soxna soosu ak waa këram bokk na ci it mbokk loolu ñàkk déggoo ba ngeen di dugg ci diine ji ca ba ngeen di dugg ci sëy bi ci naka ngeen dégge diine tey jii benn waaye ngi nii doon koo xam ne moom kat sunna bu sell lay dund bëggul lenn lu taq léegi nag dem gis benn soxna taar ba yiim na ko mu ñëw na ko dama la bëgg soxna léegi nag imma soxna si na ko ah man kat nii laa mën a mel masalan damaa bëggoon nga muuru mu ne man kat mënuguma muuru soo may takk daal nga takk ma xëy na ñu seet wala soxna si ne ko ah man kat biddaa yi ma fekkoon say maam boo ma takkee képp du tee ma fay dem ca loolu wallahi lu ñuy gis la yooyu yépp bëgg nga ko bëgg tax nga daa koor ak moom ci loolu nga jàpp ne su ma ko takkee danaa ko mën a changé nga takk ba ci biir changé changé mënoo ci dara loolee nekk mbokk jur fitna comme soxna sa it man ngaa gis benn jeune ngi nii ma nga doon koo xam ne ab tuxkat la ab kartkat la mu ñëw na di la bëgg xëy na yow bëggeel ga nga am ci moom nga jàpp ne boo séeg moom da nga ko changé fekk dara lu yàggul dara benn soxna ngi may téléphoné sama borom kër kër moom lii di dox tànk caaxaan dafa nekk ci moom damaa jàppoon na nag ak ndaw la dana ko changé waaye dem na ba am ñaari jabar tey la waalu gën a ay mbokk loolu ëpp naa def képp koo xam ne yaa ngi dugg moom ci sëy la nga xam ne da nga koo gëm ci sa diina leeral ko mu leer nan su ngeen te dëppoo xayul su ngeen te dëppoo ku nekk seet ka nga xam ne moom nga dëppool bokk na ci loolu mbokk ci fitna yoo xam ne day am ci sëy muy bari na rawatina ci ndaw yi julit ñi dañuy ñàkk comprendre lan mooy kilifteef ci wàllu sëy dañ naan la yow góor yaay kilifa kër gi ñu jàpp ne kilifa mooy lan mooy nekk un gendarme ci biir kër gi su ma waxee kenn waru cee teg baat ku wax nga yuuxu ko ku wax nga yeme na ko kenn du jël décision lu dul say décision la kenn amul xalaat soxna si amul lenn responsabilité loolu lañ jàpp ne mbokk mooy kilifteef waaye ñàkk xam mbokk kilifteef kaka wane woon mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne noonu la wane woon dund ko daan ko jégle mooy yow dañ laa sant nga nekk kilifa famille bi muy responsabilité la bu rëy bu ñu gàll sa loos loolu mooy lan soxna sii la yàlla booleel wala soxna yi la yàlla booleel ak njaboot gi da ngaa war a dox guddi ak bëccëg ngir may leen teraangay àdduna dox guddeeg ak bëccëg ci lépp lu leen di bégal ci lépp lu tax ñu réussir ci àdduna bépp gàllankoor bi nar a am seen biir nga taxaw ci balay am lépp loo xam ne ndox la lu leen di dog seen wàllu àdduna wala wàllu diine nga taxaw ca lépp loo xam ne luy nar a yàq seeni jukko la nar a dugg ci kër gi nga fexe ba wattu ko na doon télévision yaala nit ñu bon yaal àndandoo yu bon ya lépp loo xam ne nii da leen di jural njëriñ adduna ak àllaaxira nga taxaw ca mbokk lii mooy kilifteef waaye kilifteef firiwul gàddu saw yat ne kenn du wax yonent bi alayhi salaam da doon wax maa ngi leen di dénk ngeen di dénkante lu baax ci soxna yi yonent bi waxu leen def leen lu baax ci soxna yi de waaye dane wastawsu bin nisaai xayra ku nekk nay dénk moromam ñekk ci soxnaam heure bu sox waaye jógee bële sama soxna nii la mel nii la mel mer ba ne la koy fas nga ne ko déet kii jigéen rek la munta normal ak fatigué tax ñu jox la ko kaza wa kaza dalal xolom ba mu bàyyi loolu loolu mbokk mooy la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di digal loolu moo tax ba julit bi nga xam ne xam ne dëgg-dëgg lan mooy kilifteef ci lislaam mooy ki nga xam ne mooy bàyyi xel la yeneen ci bi alayhi salaam doon wax ne julit day du bañ julit julit bu góor du bañ julit bu jigéen ndax imma nga am jukko am ci moom jukko bu la naqari soo xoolee da nga gis beneen jukko bu rafet bu nekk ci moom su ko defee yow góor fexeel xool jukko yu rafet yooyu yàlla def ci soxna si nga jéem koo muñi jukko yu bon yi jéem a maslaha ak moom loolu mooy la nga xam ni moom la ñu yeneen ci bàyyi islam doon digal gannaaw ba it mboolem mbaax mboolem melokaan bu rafet mboolem tolérance ngal la waay nga jël ko jëmale ko ci njabar googu borom bi subhanahu wa taala nee na seeni soxna yi day am na ci ay noon yu mën a nekk ci ñoom ak seen njabar gi waaye wa in taafu wa tasfahu wa taxfiru fa inna allaha gafuru rahim su ngeen nekkee di jéggale di jéllale mel ne yëgoo di baale xam leen ne yàlla kuy jéggalaate la ko yërëmaate la kon it boo bëggee sunu borom mii sa kilifa jéggal la yërëm la njaboot gi nga yilif dee leen jéggal di leen yërëm yeneen ci bàyyi salaatu wasalaam ne ki gën a mag ngëm ci jullit ñëpp mooy ki ci gën a rafet jukko waaye kay tànneef ca borom jukko yi rafet yooyee mooy ñu gën a baax ca la nga xam ne mooy seeni soxna ak seen njaboot mbokk lii di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war na ci nafaraat boppam xoolaat ci lan mooy boppam bokk na ci jafe-jafe yooyu di am ci sëy yi mbokk jullit mooy li nga xam ne nii moom mooy ay nit seen démb la ñuy jéem a dund seen tey masalan benn góor day ñëw mu ne man kat waa saa baay ba mu yoree jabootam su masaan wax kenn du addu képp ko masaan yëngu mu daal di gëdd yenn la la kilifteef googu saa baay amoon loolee lay nar a taxawal waaye mbokk nuru sa baay nuru diine moo ko gën nuru sa baay nuru jamono moo ko gën loolee léeg-léeg soxna si fàtte du ko ne moom kat yaayam moo moomoon baayam fàtte du ko ne moom diggante yaayam ak baayam ku nekk di daan jéem a not sa morom moom it lu mu mën a def pour not borom këram da koy def yooyee mbokk da ngay gis ne bari na lool di am ci ay doomu aadama waaye yow ndawal julit wala yow soxna si ngar la way xamal ne sa doxalin ak sa diine sa jukko yaa ngi ko war a jële ci sa diine boobee waaye waroo koo jële ci li nga doon ci say maam wala jëkka jële ca la nga xam ne mooy ay aada loolu lu ci bari day jur ay fitna mbokk léeg-léeg ay jafe-jafe danay am ci sëy bokk na la koy waral mooy kenn ci way dencante yi moo am problème mu xel bu koy dikkal ca loolu jafe na bari na lool problème mu xel yooyu na doon ko góor ko la dal bu dee na soxna si comprendre la ko ca loolee koy dikkal ci ay fitna nga xam ne day jaxase xelam mu bëgg taxaw ci kanamam ba koo contre jéem ko comprendre naxanteeg moom jàppale ko loolu mën naa dem ba reyante sax am ci diggante say boobe loolu ñu ko waxee ci ku góor ki lañ koy waxee ci soxna si soxna si it mën na am lu koy dikkal léeg-léeg ci xel mu ñàkk a neex ba léeg-léeg muy def ay mbir yoo xam ne da ngay xam ne lii kat du mbir moo xam ne bu mu tay la réaction yi du lu mu tay ku mel noonu dañ ko war a jéem a comprendre jéem a naxante suñu borom yàlla defal nañu ñu yàlla may ñu xam-xam-xamu doomu aadama ñu dem ci médecin yi am na ci ay garab yoo xam ne buñ la ko joxee loole di nervosité boobu daan di dikkal dana la doon lu lay calmer nga dund dund gu teey yii yit ku nekk ci ñun ku ko yëg ci sa borom kër wala nga yëg ko ci sa soxna ngal la waay fexeel nooy naxanteeg moom bañ loolu saafaru bu loolu amul rek fitna bu rëy lay jur ci kër yi mbokk bokk na luy jur fitna yu tar ci sunu njagaa njaboot bi ci sëy yi mooy jamono bi ñuy dund mooy jamono yi machine lépp ngi ñuy tasaaroo doomu aadama yi oto yaa ngi avion yaa ngi ordinateur yaa ngi lépp lu automatique mi ngi nii waaye adduna boobu noonu mu avancé ci wàllu ay machine noonu la ñàkk utal doomu aadama solution ci wàllu ruuxam loolu moo tax ba lu bari ci doomu aadama yi ngir jëkkante ci loolu tax na ba ñu fàtte la nga xam ne mooy seen njaboot ba tey jii da ngay gis koo xam ne mën na nekk ci àll bi di dangani pendant dix ans vingt ans mu nekk ko Amérique wala Europe di dàq adduna boo xam ne du ko dab ba faw bàyyi njabootam ñu mel ne ay xar ci gitt ga bu yore dégg am la leen sànni mbokk yooyu ay erreur très grave la da ngay xam yow julit adduna dañ la fi indi pour nga jaamu yàlla heure boo xamee yàlla sutural na la nga mën a am fooy tëdd am looy lekk amoo lu gën a baax foofu sa njaboot di toogoog ñoom di waxtaan ak ñoom yow soxna si la nga xam ne moo xew suñ jamono tey ñu bari rus nañu looy liggéey nga ne man ci kër ga laay toog déedéet da ngaa war a xëy ci bureau ya fajar nga jóg vingt deux heures ngay jëli siwaat ngir dàq adduna boo xam ne doo ko dab ba mukk nga la way xamul amul lu gën a kawe loo xam ne mooy toogoon uuf sa njaboot sa borom kër ñëw nga di ko dalal loolee dara gënul mel ne moom doonte ne araama lañu liggéeyu jigéen waaye lan cay wax muy bépp liggéey boo xam ne tax na ba àq ba nga waroon a am ca njaboot ga defoo ko échec nga ci loolee mbokk julit bokk na ci loolu ba tey mooy ay aada yoo xam ne day am ci réew soo ñëwoon lu bari ci réewu Sénégal léeg-léeg jigéen day sëy fi ci kër ñu jàpp ne kii moom bindaan la rek war na déggal jëkkëram déggal frère jëkkëram goro bi mooy kilifaam moom mooy léppam ci ordre am la war a dox mbokk loolu du lislaam jigéen kilifaam mooy borom këram ñëwul fii pour nekk mbindaan dafa war a ñëw pour sëy ab sëyam lépp loo xamee ni nii dafa paase loolu ci bànneexu boppam la ko war a def amma ñun dëkk mi la Sénégal da ngay dem sa bànneexu jëkkër sa bànneexu gorom sa bànneexu ay njëkke rawatina boo fekkee ay njëkk ci kër ga nag moom tey nga dee dañu lay jàpp ne yow yaa war a doon koo xam ne luy coono yaa ko war a def mbokk loolee dañuy gis ne ay musiba yuy yàq suñu sëy yu bari bokk na ci loolu itamit jàpp ne yow kat faatu diw mi nga war a sëyal sa doomu bàjjen wala sa doomu nijaay bëgg na bëggul sa yoon newu ci kii daal nga war a sëyal mooy sa borom kër jeex na su ko defee soxna si malgré moom dana dem sëy waaye li muy sëyal bëgg ko loolee mbokk bu ko muñee ci jamonoy ndaw bu demee ba xaw a gimmi ci àdduna rek dañuy daal di gis problème yi day daal di commencé donc ne ne mbokk bokk na ci loolu ba tey it la nga xamee ni nii mooy gën a yàq ay sëy mooy conseil yu bon yu doomu aadama yi di conseillante tey ji lu ëpp ci nit ñi da ngay gis heure bu seen xarit ñëwee wala seen mbokk ñëw na leen sama soxla nii wala sama borom kër nii pour wane ne moom nga faral da nga naan ko moom kay du dara dal ci kawam lu la nga wax ko waaye mbokk déedéet xamal ko ne yaa nekk ci erreur xamal ne ko muñal comme la yonente bi alayhi salaam waxoon Zayd amsik alayka zawjak mooy muñal sa soxna si téye ko doon ne mu bokk ci it leneen lu grave mooy loi yi nga xam ne yàlla nattoo nañu ko lu bari tey ci intellectuel yi gis nañu seen morom ka tas na tribunal jël na kër ga jox ko seen morom ñu ngi dagg salaire di ko jox ñoom it heure bu seen waay ne naam ñu ne kon nañ dem tribunal am loolu mu am mbokk bépp jigéen bu yóbbu sax borom këram tribunal ba ñuy dagg alalam di ko jox ngal la way na xam ne dugg na ci musiba ci musiba yi àdduna yi bokk na ci loolu itamit mbokk julit mooy doomu aadama yi léeg-léeg yàlla mën na leen a nattoo ci ak ñàkk na am gërëmuñu benn nit di dugg ci sëy ci amuloo loolee da ngay gis ay théâtre kat di wax naan soo xisee ba am vingt cinq ans boo mënee takkal boo mënul takkal kaza wa kaza bu yaay d'accord rek bay dàkk takkal mbokk loolu ay théâtre la yonent bi alayhi salaam dane ay yéen ndaw ñi ku mën a takk na takk ku mënul na muñ ba yàlla di ko woomalal del woor ay bis loolu mi ngi noonu am maa nag borom kër boo xam ne gis na la xam say jukkoo baax na ak sa diine moom xam ne yow mënoo yor soxna waaye mën na laa may doomam jàppale la ci loolu beneen mbir la waaye bu loolu amul bul dem takk doomu jaambur ci amuloo am naa nag nit ki mën naa am ba pare yàlla nattoo ko mu ñàkk bu dee ne soxna sa diine ja baaxul da ngay gis problème yi day daal di commencé waaye ngal la waaye fàttali ko soxna yonente bi salallahu alayhi wa sallam daanañ toog weer ñaari weer cin du takk seen kër te daaw ñu dem di ko jàmbat fenn mu ne mun nga rafet yàlla mi ma joxe woon nangu su ko neexee indiwaat lu gën lam nangu loolu la julit jigéen a julit war a war a bàyyi xel bokk na ci loolu ba tey bokk julit la nga xam ne nii dafay am ci sëy yu bari mooy heure boo xam ne sa jëkkër takk na wujju mbokk wujju du musiba xoolal yonent bi alayhi salaam ay soxnaam ñoo gën ci xeet bi ca dañ daan wujje xoolal yow imma sa ndey da doon wujje wala sa naam da doon wujje yaa ngeen ay doomu baay loolu kon heure boo xam ne wujj ñëw na du wujj mooy jaxase kër wallahi wujj ma day bu jaare yoon dafay indi jàmm ci kër mag ñi dañ daan wax pour mu naqari la waaye weri bu neex la te mooy benn jigéen bëggul wujj waaye nag ngal la waay boo jàppee lii lu yàlla dogal la la nangu ko ci yàlla tax wallahi suñu borom yàlla wëlbati ko def ko xéewal ñeel la moom la borom bi di wax loo xam ne bilal da koy wax bi baraaj ma tafassahu yafsahi llahu lakum yaatalante leen yàlla yaatal leen loolu bu ci bàyyi benn xel xoolal bul jàpp ne ñi am wujj ñoo am problème baam quatre vingt dix pour cent te problème yi ñu rek la ñun imam yi mi ngi jóge ci borom benn jabar bi mi ngi noonu loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee la nga xam ne moom la ñuy jeexale mbokk julit lii nga xam ne nii mooy ab sëy fokk it ñu ciy bàyyi xel lii di situation yi ni mu tolloo yàlla moo ñu bind daa di wuutale suñu situation ni ma dul d'accord benn jeune dem Paris takk fa benn koo xam ne Paris la juddoo Paris la yaroo daa di ñëw di ko indi suñu dëkk taax yi Ndakaaru yi noonu dañuy contrer ku juddoo ci dëkk taax yi nga jël ko yóbbu ko ci àll ba ca kaw ga ba benn jigéen nee na moom day ñan ko yóbbu woon ca Fuuta ca frontière yi Mauritanie mu ne dund naa ko coono yoo xam ne jamono yi mooy jamono événement naar yi dama doon xalaat nan naar yi ñëw rek rey na benn yoon sax mu noppalu ndax ay waajur imposé nañ ko loolu mënu caa jóge mbokk loolu njuumte la bul jël mukk xale bu jigéen ba yaroo ci taax yi yaroo ci lumière yi ci ndox yeeg yépp nga yóbbu ko koo xamee ni ne ca àll bala ca gott bala yooyu yépp dafay doon loo xam ne ni dafay jur ay fitna su ko defee sëy bi dañ koo war a sàmm waaye sàmm gi day yow soxna si danaa ko séddalee téeméeri parti juróom-ñaar fukki bi yow la loolu moo tax sunu maam yi ku daan sëyi ku jigéen ci la ñuy tiim di ko yedd di ko muñuloo loolu kon pour sëy bi réussir xamal ne jigéen yaa war a muñ suñu borom ne fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bima xafiza allah jigéen ñi nga xam ne ñu baax lañu ñu nangul seen borom la nangul seeni jëkkër di wattu kumba da yàlla wattuloo mu ne ñii day la yàlla subhanahu wa taala gërëm yonente bi alayhi salatu wasalaam teg ca ne law kuntu aamiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmarata an tasjuda li zawjiha su ma doon digal kenn ne ko bu gisee moroomam ne ko sujuutal dama naan jigéen boo gisee sa jëkkër sujuutal ko yow soxna si tànk yaa ngi gëm ne kii ma yàlla booleel damay jaamu yàlla ci moom déggal ko ni militaire yi dégg na seen général ngir am salaire man danaa ko déggal ngir am sama gërëmal borom jox na ma joxuma am naa amuma la la may sàkku daal mooy yàlla gërëm ma sama jëkkër ji wallahi yàlla dana wëlbatiku gërëm la may la dund goo xam ne dund goo gërëm la defoon nañu benn góor boo xam ne goo doy waar la daf doon changé jabar ni muy changé yére ku mu takk fasa la waaye am na benn jigéen bi mujj sëyal ña nga xam ne ñoo ko doon jëli yaayu soxna si def na leen seen waajur yi dégg naa comme takk fase ko waaye sama doom ji day incha allah du ko fase mais na nga ko waxee woon noonu la ndax mbokk nit ki lay wut fokk mu am bunt doogu dugg wala fi nee nañ salaana gaaw a jooy waaye ko laalul du jooy waaye soxna soo xam ne dafa ñëw yem ci loxo borom këram su ko waxee lu neex mu muñ wax ko mu naqari muñ lu ko joxee baax na lu ko joxul baax na loole da ngay gis borom kër ba lu mu tàng tàng du am benn bunt bu mu la jox loolu mbokk da ngay gis ne ki ko def te yàlla tax day dana sauvé boppam sauvé njabootam indi jàmm ci réew mi yàlla na yàlla indil ñu jàmm ci suñu sëy yi yàlla na yàlla defal ñu sëy yi ñu sëy ko te yàlla tax yàlla na yàlla tegal ñu ci lépp loo xam ne nii dañu cay lor yàlla na yàlla génnal ñu ci njaboot gu barkeel yàlla na yàlla boole ñu defal ñu mujj gu rafet te boole ñu ci àjjanaam yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين